tey ji la ajjuma yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci diggi tabaski atum junneeg ñeent téeméer ak ñeent fukk juróom ci gàddaay gi li yëglekaay yi xëyee ni tey ji nañu ànd yërëndoo ko dóori ko bi euh, di suuf ba tey ji foofu la ca euh, xamal moo di njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye la moo di ba mbooleem ñi nga xam si ni am nañ suuf ci lu jaar yoon fii ci réewum Sénégal liggéey ban doon moo xam ci littoral beek feneen foofu mën doon ko daal di dakkal coowal suuf am na foofu de ci kër Moussa waaye nag dafa mel ni euh, gouverneur ba fa nekk nekk fa ndawal buur dafa mel ni moom ne dafa tegg euh, ndigle yi euh, jiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ko waral moo di moom gouverneur na ndox ak minière bek nañu ko fa jëfandikoo naka itam yu bare bari ci suuf saak nañu koy saax-saaxe lépp mu ngi ci biir yéenekaay bi di euh, le soleil ba tey ba beneen yëglekaay la moo xam ne ni ki tey ji le témoin quotidien yéenekaay bi la mu taxaw moo di xeex ngir sineebar drogue cocaïne jóge fii ci réewum Sénégal yéenekaay bi lam ñu xamal moo di baa xam ngeen ni ci jirub juróom benn weer kot rek donc duwaan bu senegal teg na loxo lu toll ci ñaari tonnes sinébar naka noonu itam loolee ña ngi ko xayma ca xaalis mu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay milliards yéenekaay bi lam ñu xamal moo di douane bu senegal nekk na duwaan bi gën ràññeeku fii ci kembaaru Afrique nga xam ne liggéey bu am solo bi ni amal ci xeex sinébar di cocaïne drogue ba tey beneen ëpp yëgle kaay ak la moo xam ne ni ki tey ji mu di l'observateur yi nekkaay ma ngi taxaw tey ji ci li ñuy wax yamba yamba nag am na ñoo xam pexe jamono ji pexe yi moo di fexe ba képp ku koy tux wala nga di ko jaay benn daan ba nañ moo di na ci ñoo xam ne gis-gis bu wuute la ñu ci am ki xam si ni moo di Assane Seck ay kàddoo mi ngi ci biir ay yénekaay bi la moo xam ne moo di loolu nag nekk na loo xam ne war nañ caa gën a indiwaat ay ay waxtaan ak yëpp ngir a déggoo man ca amaat naka itam Mame Makhtar Gueye moom itam la moo xam ne moo di loolu nag jéego xam si ne danger bu nu ko amalee wax dëgg yàlla lu gën naka noonu itam ki xam se ni moo di commissaire euh, Cheikhouna Keita ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi euh, la ko xam euh, moo bu nu jógee ci yéenekaay bi di l'observateur jamono ji am na ñenn ñoo xam ne ay kilifa lañ ci biir APR ñi commencé commencé génn APR euh, di wàlli yaani wala ñoo xam xam ne jamono ji daal taxaw na temm maanaam amatul benn digle wala lenn loo xam dañ koy wax jëmale ko ci parti bi di wax parti APR dafa mel ni dañoo banque seeni yoxoon noonu la ko xamle ci euh, biir euh, yéenekaay bi noonu la ko xamle ba tey yéenekaay bi lam ñu xamal moom itam mu nekk kàddu Abdou Mbow moom Abdou Mbow nee na gouvernement bu bees bi fi nekk wax dëgg yàlla weer yi nga xam ne jot nañ koo amal lii xeeñ neexagul noonu la ko xamle ci biir yéenekaay ba tey mu ne amana bu fekkee tey dafa jël dogal ngir génn biir APR lam ca xam itam ma nga ca biir yéenekaay bi di l'observateur ba tey beneen yéenekaay la mu xamle ni ki jii mu di lii quotidien yéenekaay bi lam ñu xamal moo di Sénégal bu doon téeméer la ci ay ndaw juróom fukki yëpp jamono ji ak ñàkk la ñu nekk maanaam pauvreté gu metti la ñuy dund mu di xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réewum Sénégal bu fekkente ne nga xam ne góor ñi ñoo ko jiite foofu nag fa la bi di gën a indi ay jafe maanaam ñàkk wax la yàlla xale yu bare bare ci ak tumuranke naka itam ci ay jafe-jafe yu métti la ñuy jànkonteel maanaam bu doon téeméer boo jël juróom fukk ak ñett yi ci ak tumuranke lañ jël waaye bu dee kër yi nga xam ne jigéen ñi ñoo ko jiite foofa sax moo xaw a tane ci wet ndax booba xale yi bu doon téeméer la ñu ñin fukk rek ñoo am ay jafe-jafe maanaam euh, ñoo am jafe-jafe yi ñàkk maanaam pauvreté la ñuy dund moom la ko yéenekaay bi di lii quotidien daal di xamle ba tey bari na yëglekaay ak la mu ji mu direct news yéenekaay bi la xamal moo di lootaabe organisation defaraat jëm ci gouvernement bi naka itam taxawaay bi nga xam ni gouvernement bu bees bi am na ko ci diggante ñaar ñi di président Euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye naka noonu tam ilimaani jëriñu Ousmane Sonko yéene kaab xamal moo dafa mel ni ilimaani jëriñu dafa mel ni dañ ko gën dooleel jamono ji daal di ko yokk doole ju sëkk noonu la ko yéene kaab bi direct ba tey ma ngi koy gën leeral ci biir bari na yëgle kaay ak la moo xam ne ni ki ji mu di le quotidien yéene kaab bi lam ñu xamal nag moo di dafa mel ni état pastéfien moo fi nekk jamono ji ki ko xam ne nag moo di Alioune Tine ay kàddu biir ay yéenekaay bi tey itam te xam na ne ala ki xam si dafa am dëgg-dëgg dayo bu mat sëkk sëkk naka itam euh, njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jamono ji dafa mel ni ci borop la toog noonu la ko waxee ci biir ay yéenekaay bi ba tey mu taxaw tey jii mi ngi jëm ci mbirum euh, ki nga moom la ñu dénk bees police nationale di police bu mu fas yéene koo doxal Mame Seydou Ndour lay wuyoo ay mi ngi ci biir yéenekaay bi bokk na ci la mu bëgg jamono ji ji mu di pexe yi nga xam ne bëgg na ko amal wala boog jéego yi nga xam ne bëgg na ko amal ñeel police bu Sénégal fan la ko bëgg yóbbu lépp mi ngi ci biir yéenekaay mu di ko leeral bokk ne ci la lépp xam ne ci ak ci aw teg seen gët naka itam lépp ñu koy defar ci ak dal naka itam ak teggi nag liggéey bu gën noonu la ko xam le moom maam Seydou Ndour ci biir yéenekaay bi ba tey turbine maam Alioune Tine moo fi nekk ci biir yéenekaay bi lam ñu xamal moo di état bi fi nekkoon bi nga xam si ni moo ni la koy yéenekaay bi xamle moom maam Seydou Ndour ak nga xam si ni moom la ñu dénk kopparal fii ci biir yéenekaay bi ñu koy wax euh, mi ngi ni mooy ministre des finances mi ngi ci biir ay bi moom nag euh, jëm ci wàllu maanaam yi nga xam ne ay eurobond lañ koy wax ak fan ci toll ak lépp mi ngi ci biir yéenekaay bi mu di ko gën a faram-fàccee di ci indi ay leeral ba tey beneen ëpp yëglekaay moo xam ne ni ki tey jii mu a yéenekaay ma nga taxaw ci aarma bi ñu xamal ba noonu la ko yéenekaay bi xamle moom euh, Amadou Faye ci biir yéenekaay bi di euh, source ba tey desaat ci ki xam si ni moo di lu jëm ci mbirum naka lañ mën a def ba xam si ni moo di maître jonn ak lu jëm ci wàllum jubbanti yoonu Sénégal naka fexe ba euh, ki nga xam si ni moo di njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye wéy di des ci conseil supérieur de la magistrature naka noonu itam lu jëm ci justice di yoonu Sénégal moom boppam ak tamit lépp loo xam si ne jëm na ci wàllum viol yu ko nuru lépp ki xam si ni moo di euh, match boo xam ne ñeel qualification coupe du monde ba tey yéenekaay bi jëkk na ci ko gën a leeral yéenekaay bi di enquête quotidien moom itam ma nga taxaw ci wàllum euh, xaalis boobu bon ak bor bañ cay leb lañ ci topp ci ay euh, intérêt yeneen yu ko mu nekk loo xam si ni wax dëgg yàlla ñoo baree bari ci askanu Sénégal jamono ji ña ci la xëy tey ji bari nëpp yëgle kaay ak la moo xam le ki tey mu di laas yéen kaay bi lam xamal moo di ki xam si ni moo di Amadou Ba ak Karim Meïssa Wade daanaka boo leen di seet ci seetu ci wàllum politique dañuy rafet lool waaye boo leen jàkkaarloog ñoom ci wàllum politique dafa dëgg yàlla ngir politique mën cee am lu bare bari waaye dafa mel ni ba a nga taxawaat ci ki xam se moo di layoolkat Ousmane Sonko di Juan Branco ñëw na fii ci réewum Sénégal séq naak waxtaan lu bari ci askanu Sénégal yéenekaay bi lam ñu xamal nag moo di Juan Branco am na naab ndaje foofu le ca CICES waxtaan dafa waxtaan woowu nag lu bare bari yëkk na yàkk na lu mel ne xamee ki nga xam se moo di Macky di njiitu réew moo fi nekkoon ak li nga xam dañu ko teg nga xam si moo di Ousmane Sonko moom Juan Branco itam ñëw na ci bi ko jàppee fii ci réewum Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne jànkoonte ko jibal mu ne kaddu yoo xam dara wiiru ca nee jamono ji sax bu koy wax bu koy digluwaat wala muy xoolaat kaddu ay ree koy jàpp moom Juan Branco itam de bokk na ca la xam ne ma ngay dénk ay kaddu Ousmane Sonko la mu koy xamal moo di wala bokk gouvernement bees bi nañu fexe ba gouvernement bees gouvernement bi fi nekkoon la mu defoon ñoom ñu bañ koo def fexe ba askanu Sénégal yaakaar gi ñu am ci ñoom euh, police nationale bu Sénégal jamono ji kaddu ya mu indi ak jéego yi nga xam ne fas yéene koo amal ngir euh, jëm ci wàllum naka nooy tam lu jëm ci wàllum kaaraange réewum Sénégal Makhtar Gueye Jamra ay kàddoom moo nekk ci biir yéenekaay bi la moo xam le moo di jamono ji lan moo tax Jamra daal di génn ci sàmm ji lépp mi ngi koy leeral euh, ci biir euh, yéenekaay bi ba tey beneen yéenekaay xam ne nekkate ji moo di point actu yéenekaay bi la ñu xamal moo di ñett ex DG maanaam ñoo xam ni ay directeur lañu woon waaye dafa mel ni jamono ji dañoo génn ci APR ga ñu nekkoon fas yéene wàll yaan dem fekkee Pastef waa Pastef jamono ji dañoo tëj seen i maanaam xaajulun fenn ngir ñëw fekk ci leen yéenekaay moo ko xamle mi ngi ci biir ay yéenekaay bi bokk Ousmane Sonko euh, ñu doore rek ak euh, lu jëm si match jongante bi nga xam démb suñu